ñu daal di koy jeexalee nag ak Abass Fall moom àdduna yi itam wax ne euh, lii xew wax dëgg yàlla nee na fi mu toll nii daf ko jiiñ daal yenn maire yi nekk fii ci euh, gox bi nee na nag waaye état bi du nangu benn yoon yooyu mbir te du ko seetaan waasan ma séeréer am na élément waa d'accord Modou ñu dem ñëpp xam nañ ne déguerpissement yoon la mais dafa am fu ñu koy teg mais xëy rek yow 12 ans déguerpiro xëy rek mu am un gouvernement bu fi nekk nga commencé jaxase kàtt yi di def lu la neex loolu lañ dul nangu te ñu koy def xam nañ leen parce que ñu koy def boo seetee ñi koy def ñëpp xam nañu ban boor politique lañ nekk te nag ñun nag neexul ba neexul mais duñu ñeexu ñebe ci politique duñu ñeexu ñebe ci politique de kenn duñu xabtal kenn duñu jam naa ne liñ leen di wax mooy nañ ko teg ci yoon EPM wax na ko il a à ce qu'on arrête les déguerpissements d'abord marchand ambulant yi toog mais bala ngaa déguerpir da nga ko wax doo koy fenn et puis amuñu courage wax ne ñoom la dañ koy def ba pare ne ne gouvernement bi moo koy def mais loolu moom mooy jéem a jaxase population yi ak gouvernement bi c'est très lâche te loolu duñ ko nangu nañ jël seen responsabilité ne ñoom ñoom ñoo ko décidé dégg nañu benn benn waay ci benn vidéo buy buy buy circulé mu ne yi nekku ci gouvernement bi la ba pare ba pare euh, euh, euh, cité ay tour koo xam nañ mais nag du ñu nangu trouble trouble euh, trouble à l'ordre public di am ça c'est de la responsabilité de l'État du Sénégal bu ñu demee ba gis loo xam ni dafay yëkkati fitna état bi day taxaw ne nañ ko arrêter et puis tout le monde toog ñu waxtaan toutes les parties les population li ñu wax dëgg la am nañu droit am à un cadre à un cadre de vie normal ñun ñi ñëpp même jaaykat dafa soxla cadre de vie parce que jaaykat bu jaayee pare bu demee këram soxla na fu mu feexloo donc jaaykat mënul bañ loolu donc li ñu mënul nangu mooy ay nit di jëfandikoo loolu parce que dee nañu politiquement ñu ne xaaral ñu fexe ba yëngal nguuru président Bassirou Diomaye Faye mënuñu ko moo tax président woote ne woo premier ministre ne ko demal nga waxtaan ak population yi waxtaan ak marchand ambulant yi li ñu wax ak yi leer na du ngeen fajal seen bopp du ngeen occupé illégalement mais bala ngeen fi jëlee dañuy toog waxtaan xool fan lañ leen di yóbbu buñ leen fa yóbboo ngeen toog ci sutura ngeen que ñun dañoo bëgg sax ambulance même bu jeexul bi mu wàññeeku ci dëkk loolu lañ bëgg ambulance ce moom la ñu am des na tuuti des na tuuti le projet na tuuti ambulance day wàññeeku parce que ñii di ñëw nii ñii ñu nekkoon ci coopérative agricole yoo xam ne chaque mois ñu am ci benn deux cent mille di ñëw fii di ambulance ayca mi ngi noonu ah, Assane dafay mel ni rek Abbas day dëggal eh, que ni eh, Ousmane Sonko doon wax yëguñu woon li xew moom nag nee na yenn maire yi ñoom ñoo jël seeni responsabilité def li ni mel ba pare di làkkatu si ginnaaw état. waaw Abbas de waxam ji jàngat la ñaar rek benn bi mooy ñu defar ay usine comme fu demee ne Touba yàgg naa ko wax ñeenti bunt la am mooy ñeenti xibla yi fu nekk ñu dóor fa benn usine ndaw ñay jóge Touba. di ñëw dakaar mën nañ faa des liggéey. Mhm. bu dee Kédougou bu dee Tamba bu dee nangam nangam mais boo gisee ñëpp daw ñëw Dakar amuñu luñ liggéey di ambila mooy ay société yuñ mën a moo amut kenn ku nekk boo sañoon boo liggéeyee ba wàccee da dem si seen njaboot. wallaay mais boo gisee ñëpp daw wut si capital bi ñàkk fuñ liggéey rek te capital bu ñëwee amuñu luñ liggéey lu di ambila kon buñ ñu dooleelee dëkk bu nekk ñu def fa ab société yi ña dëkk sa dëkk boobu di fa liggéey kon léegi dëkk yëpp suqaliku. Mhm. loolu moom ànd naa ci moom beneen bi it xam naa ne wax ji moom in foog faut que euh, Bilal Diatta xoolaat ci boppam bu baax si waxi Abbas ji ñoom ñaar nag ma lu xew waaye <laughs> il faut mu xoolaat ci boppam. Mm. ndax euh, Bilal bi muy def affaire bi euh, mesure parti bi bokk Pastef dañ ko na mm-hmm. boo demee si groupe WhatsApp yi toog ñu bokk Pastef da gis ñuy audio naan lii naqari na ma metti na ñuy jël audio yi di ko dugal si biir groupe WhatsApp yi. te moom it dala xamal ni faluñu kenn man la ñu fal man miñ fal nag damay liggéey El Hadj Sa waxoon na ko nee leen bu ngeen dee yëkkati xam ngeen ni seen programme bi ngeen amee màggal la weeru màggal bi si ngeen koy def tabaski nee leen dama leen a soxla si tabaski gi fii ngeen ne buñ la ñaanee nag nga may leen ndax yow heure ba nga ko soxla ñëwagut jox leen ay kayit yu leer mais boo gisee Bilal ni mu ko doon defee ñoom ñu bokk Pastef ni mu waxee nii ni maire yi dafa am ñoo xam ne dañoo laxasu kii pour xajjale ndaw ñeeg gouvernement bi pour ñu jéñ ko ko boo xoolee affaire mi ngi tàmbalee kees si mairie bu su lay jóg Kër Massar mairie bu waa Pastef la woon xawma ba léegi moom laa am déet mooy Bilal jaata dañ naa ko gis si programme yeeg yooyu waaye xawma ba xam ndax mi ngi sañ sañse rek bitig bu mu dem sañ si ay dàllam kii yor fitalam naan maire bu dakaar laa soxla maa leen ëpp fiit fuuf moom gis naa ko moom moom Bilal Diatta mu muy wax loolu mais maire bu Dakar la soxla may maire bu Kër Massar bi il faut mu lijjanti ko balaa soxla maire bu Dakar hmm. Khadima Yakor Diouf Khadima Yakor xaw ma gis naa ko moom it mu hmm. def lu mel nii hmm. maire yi Pastef yi ñoom ñoo ko njëkk di ko def booba nag booba lañ leen waroon a arrêté mais boobaat laata li tax mënuñu leen arrêté décret bu ministre de l'intérieur la woon kon nag bu lii amee maire yëpp ni tekk nañu gaaw rek li ma bëgg man ñu mujj waxtaane ko ñu continuer ko mu deñ moo gën mm. ndax am na ñoo xam ne yëkkati nañ leen ba pare léegi nag bu ñu arrêté fañ nekkoon nañuy dem jéem koo defaraat di xaar ndigal kon nag kut ka kut nañ ko xool nañ ko war a defee ñu ñu ñu licencié leen bind seen i tur jox leen ay reçu ah, wax na leen waaw jox leen ay reçu yoo xamante ni bis bu fañ leen di yóbbu paree ku ñëw wane sa reçu ñu jox la place mm-hmm. boo nappee ñu financé leen di wax ne euh, madame Aïda Mbodj gis naa la démb Baye mbay di fatawoo yow bul ko lebalee du la fay <laughs> Baye mbay Cheikh Baara Ndiaye ci yoonu Baye nag Assane ah, waaw dem naa gis naa ko mu ànd ak moom fatawu di ko xàllal naan may leen ko mu jàll ngir bor bi eh, Ousmane ko buy wax waxut ñoom baay mbay ñii ah mais ñoom Baye Mbaye bu ñu amee seen projet kay bu ñu ko joxee ñun ñun Ousmane Sonko ñi am place di liggéey la wax ñu yëkkati leen waaye waxut ay ñoom Baye Mbaye ñii bu leen ko lebalee dañ koy jënde ab oto di wër di taxawaalu day xëtal dëkk bi rek kon madame Aïda Mbodj su mënta ñàkk chroniqueur du peuple yi. eh waaye waaw waaw. kuraat ci ñoom Baye Mbaye bu dee lebal xaalis bi. wax naa la ko ne bëgg a dégg bu kenn ko rentable buy génne xaalis kay. bu demee ñu lebal ko dañ koy taxawaaloo gaz waal essence lañ koy duyee taxawaaloo ko dëkk bi. te président bi bëgg loolu li mu bëgg moo ñu liggéey koy def yow yaa ngi wax ne meilleur chronique man damay bay am na ay tool waaw léegi pourquoi eh, léegi nga bañ ne ñoom bay mbay amuñuy tool duñu bay amuñuy tool man dama am tool damay dem bay ay surga wut defar sama kër tabax ko ba mu àgg ma ma jënd aw jiwu bay joxe hélas. ma jox hélas. Mhm. d' accord démb sax euh, ci vidéo yi gis naa si boo xamante ne nii moom madame Aïda Mbodj mu ngi taxawoon ak benn femme femme bi ne leen ñun ñoo sàkku mairie bi pour ñu jëlee fa euh, ñi nga xam ne ñoo di am ambulant yi ndax ñoom tamit amatuñu espace amatuñu euh, kii léegi tey Abass Fall ñëw wax ne fi mu toll nii yenn yi ñoom dañ ko jiiñ daal ñenn yenn mairie yi ñoom ñoo sàkku mbir mi ba pare bëgg a jël responsabilité bi yëpp këpp ko ci kaw nguur gi. waaw xam nga pareen yi moom da ngay gis ni euh, politiciens yi euh, mën nañu def lenn loo xamante ne bii euh, mën nañ ko def ngir tuuma man gisoon naa maire Grand Yoff bi waaw moom dafa jël responsabilité moom dëgg fa yàlla ne leen lii mana mm-hmm. yoonu jomaay nekku ci yoonu Sonko newu ci mm-hmm. waaw loolu maire kii bi moom. taxaw na mhm. wax loolu. waaw ma ne mais ne yoonu jomaay nekku ci yoonu kii nekku ci man mii maa koy def. Ah, kon kooku wax dëgg fa yàlla. Mhm. Euh, jël na responsabilité mhm. mais am na ci ñeneen ñoo xam ne nag mën nañu raataloo. pour tamit lii Abbas wax ñu def ko. pour dugal ci mbirum politique. Ah waaw parce que politicien moom fu ne lay génnee taxawaay bu nekk dañ koy amal. mais nag dafa wax wax ju am solo te Assane mi ngi ci doon wax sànq. Mm-hmm. muy problème mu ambulant. Mm-hmm. maanaam problème mu ambulant lenn lenn la maanaam dafa am ñu bari ñoo xam ni ñàkk pexe moo leen ci dugg. wallaay kese. waaye nag am na ñoo xam dafa dem ba ci biir mu doon pexe. Mm-hmm. <laughs> parce que Abbas wax na ba wax ay deux cent mille. am na ñoo xam ne bii ci biir ambulant yi xeeb nañ deux cent mille ci weer bi. <laughs> ok pexe la. <laughs> donc donc ñooñu xam nga pexe la jot. <laughs> ñooñu nag waaye nag bu ñu demee ba wàññi ñenn ñi. Mm-hmm. ñeneen ñi di nga leen mën a recaser. xam nga moo tax solution. Mm-hmm. bi nga xam ne moom la wax noonu tamit solution boobu incha allah day am. Mm-hmm. parce que gis nga Assane. li ngay gis ni yëpp ci nguur ay benn chaîne la rek il suffit que yëpp dox da ngay jékki rek. nit ñi génn ci mbedd mi nga ne waaw pourtant fii la ñuy doon anamu ñoom mi ngi usine sàngam ñu ne ana diw ñu ne waaw mi ngi kii sàngam ana kii ñu ne ñoom ña léegi yor nañ ay projet kii ñu ngi ci eh, mbay ma def nañ seen kii wag ana diw ñu ne mi nga fële maanaam nit ñi doon la ñuy génneewaat mm-hmm. ci biir kii parce que niñ ko ñàkkee moo tax ñoom ñëpp ñu dajaloo parce que bu nga boo demee ci ambulance borom diplôme sangam am am mhm. naa bac plus mhm. nangam bac plus nangam bac plus comprendre nga mhm. ay intellectuel yu jàng ba yor seen këyit toog la parce que xam nga lan la réew mi doon demee maanaam euh, bu ñu yoree xaalis di ko financé duñ ko financé ñi nga xamante ni bii tey mérité nañ ko mais dañ naa diw ban parti la bokk ban kii la bokk maanaam façon boobu bu fi jógee léegi nga gis lii ngay gis ci mbedd mi dootul demee waaw parce que loolu day daal dee dañ donc nag kon li ñu mën a wax rek mooy ñu fexe aussi ñaanal nguur gi ñu daal dee yeggale ci sago yeggale ci jàmm yéene ji askan wi gis nañ ko te xam nañ ko parce que ni tax askan wi gis ko euh, ma buuba jóg ma buuba ma buuba jaañ ah <laughs> ministre euh, bi yore wàllu mbay meeg kii mi dañuy toog sànq dañuy toog am ko wax de ci daan ne sawaay li muy dafa dafay sóo ma ne ko déet du sóo day dañ koo tàmmut rek <laughs> dañoo tàmmut lu mel nii dañoo tàmmut gis nit ñi ci askan bi ah. moo tax beneen façon interprétation bu nekk dina am mm-hmm. c'est parce que tàmmuñu leen a mm-hmm. gis ci mbedd bi ah, comprendre ministre bureau ba rek nga ko daan fekk mais ñii boo demee bureau doo leen fa fekk mm-hmm. ci mbedd bi nga mën a dajeek ñoom parce que ñi ngi ci mbedd mi ñi ngi ci terrain bi ñu ngi liggéey. Mhm. comprendre nga. parce que dox na ba sonn waaw mais liggéey la mais <laughs> xam nga yéene ji xam nga mhm. le président Diomaye déggoo ko nee na boo joxe na ko cité na ko comme exemple ne boo ko gisee xam ne liñ ko jox da koo bëgg. Mhm. gis nga ma jigéen nit buy def lu mu bëgg du ci sonn. yow yaay gis coono bi. mais moom yëgut ni. mu ngi sonn mi ngi sonn parce que dafa am amour bi maanaam bu gisee nit koo xam ne réussir na sax ci wàll bi mu yor. buy wax ak moom da ngay gis. cofeel geeg mbëggeel gi nga xam ne moom la am hmm. ci li nga xam ne moom la réussir maanaam dafa koo bëgg quoi maanaam mbir la moo xam ne daf koo bëgg comprendre hmm. loolu nag yéene ji Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët hmm. mais li wolof di wax ne ndar xëyit sotti wallaay ne mbiliñ mbat lépp réglé ci réew moo xamante ni bii depuis 1960 ba nëgë dañ koo yàq yaa ngi dégg dara jagutu ñu yëkkati ko teg ko ci ay loxo loxo yooyu ñu am ci ñoom yaakaar lool parce que diñ ko tegee ci seen loxo mooy loxo yoo xamante ni dañ ñoo wan njub njub gu wér. ak dëggu. comprendre nga. ak mhm. dëggu teg mbir yi ci yoon. ñu jox leen ko ñuy teg mbir yi ci yoon bu ñuy teg mbir ci yoon lii ngay gis yëpp journal di ko bind yëpp li ñuy teg mbir yi ci yoon a leen naqari. Mhm. parce que dafa am ñoo xam ne désordre bi désordre boo gis ordre la ci ñenn ñi. Mhm. ni yëf yi jaxasoo woon bëgguñu ku ko lijjanti. boo koy lijjanti rek. seeni mbir di jaxasoo te nag boo ko lijjantee ci la mbiru askan wi bu bari maanaam mi ngi mel ni tey ñaar fukki nit la jël téeméeri nit nekk fële yëf yi laj ngay hmm. làqar ci ñaar fukki nit ñi ne la moom yëf yi du fi làqar ci làqar ko bàyyil nii mu la jee baax na <laughs> fi toll ni loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li am yëf yi gars yi bëgguñu mu jaar ci yoon waaye incha allah dana jaar ci yoon Sénégal yi gis ci seen bopp jafe-jafel boo gis yomba la ciy topp hmm. sunu borom dana woon lii nga xamante ni bi ambulant yu bari peut-être affaire DER bi sax calculé wuñu woon ndax pour dem déposer jéeg yooyu mhm. démb bu jafe-jafe bi amutoon peut-être que ni Ousmane Sonko du ànd ak mhm. Aïda Mbodj ñëw wax leen ne leen lii ak lii dina leen recevoir mhm. fi mu toll nii am na ñoo xam ne seen mbir fii la war a jaaree pour régler ba faw parce que amoon nañ ay idée am seeni projet toog di jéem a taaba taaba nuñ ko légee taabal boobu ñu damm Ousmane Sonko ñëw wax lii muy wax ci la ñuy defar seen projet dem yóbbu am lu gën taabal boobu. te loolu bu lii amutoon. loolu du am loolu du am. beneen mm-hmm. saa moo tax nguur gi ñi leen di jéem a yàqal léeg-léeg dañ leen di jéem a yàqal defaral leen. Mm-hmm. parce que alal ja mën naa dem fa nga xam ni fa la war a dem. Mm-hmm. mais la plupart alal ji daawul dem fi nga xam ni fa la. dëgg la allah.